le même régime juridique c'est-à-dire état d'urgence bu ma la ko doon définir ci droit mooy liberté publique amatul gis nga état d'urgence xam moy lan bu neexee ministère yi nekk ci biir ñu ñëw léegi dagg émission bi nga bëgg a def journal ñu interdire ko ñu jàpp ni yow mi yaa ngi wax wala yaa ngi complot wala arme ñu ñëw sa kër trois heures du matin ba pare ci démocratie benn moment rek en temps de paix la ñu accepter nit policiers yor bal réel parce que état d'urgence gars yi bu ñu génnee tëree la ñuy sol te du ñu yor des balles en plastique bal réel la ñuy yor dañuy am droit dóor tiire nit mu dee. li xew mooy lii du guerre du xeex du émeute du dara li xew mooy. nit ñaa ngi dee am na virus bu fi nekk ñu créé beneen état bu tudd catastrophe naturelle ci état boobu ci loi bi amatul dóor bal amatul piétiner les libertés publiques xam lan la am. maanaam chaque fois que les circonstances l'exigent chaque fois que mu war a nekk président am na droit jël des mesures dictées par la situation mais loolu du lu bees ci droit de xam nga yooyu yaa ngi wax naan bi ba onze septembre amee président États-Unis nekk ci air bi loolu c'est ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles en droit cest à ci réew dafay am loo xew lu xew loo xam ne nii président am na droit compte tenu situation bi jël décision directement maanaam tey bu ñu xëyeen suba tell tell ay militaire dugg fi commencé tirer président du xaar assemblée nationale du def déclaration de guerre day mobiliser armée bi gars yi déclaration nit ñi commencé tirer tout de suite loolu mooy circonstance exceptionnelle tu comprends maanaam état d'urgence demul état de siège demul dañ ci hmm. yokkaat beneen bu gën a oyof léegi nag hmm. léegi nag problème bi mooy bi ñu ci yokk moo gën a woyof état d'urgence moo gën a woyof état de siège maintenant boobu dafa poser question boobu importance pourquoi maintenant xam lu tax amul benn loi buy jóge cin dara